bu neexee du moromu làmb. Hmm. états bu neexee. du moromu làmb vraiment moromu làmb. Hmm. te parce que tamit làmb am na ay blessure. waaw am loolu. États-Unis loolu semaine lañ lu booy wax nee na. Ah, du états du moromu làmb. mais moom Europe la ah. ah. raison de côté mooy. tey c'est vrai que ni boo nekkee ci làmb ji doxul. nga ni daal xaaral ma dem uti leneen boo amee possibilité dem fenn xam nga foo mënti nekk ci àdduna te lii la fa yóbbu mooy dem liggéey boo fa nekkee di liggéey di fayeeku c'est vrai moo gën toog ci làmb ji di xaar loo xam ni. xam nga kañ lay ñëw ay benn année blanche ñaari année blanche. Mm-hmm. et puis di sonal nit yi donc il a très vite que ni moom peut-être que ni pare na ci làmb ji. Mm-hmm. mu def transition dem États-Unis dem liggéey. dem make money. waaw dem make money c'est <laughs> important. loolu lañ leen di ñaanal ñoom ñëpp ah. parce que xam nga làmb ji comme ni ñu koy waxee nii rek. du ñëpp la ñuy dégg. du ñëppay génn du mm. ñëppay fël. Mm. mais peut-être que ni boo ci nekkee arrivé à un moment donné. mën na la ubbil ay bunt yoo xam ne tey mën nga dem seeti leneen. Mm. mais mais nga nekkoon fii nekkoon mbër mu xarañ nag li nga koy gis nii. Mm-hmm. Tissé Kilabati Tidiane Faye. waaw Tissé Kilabati Zos. Mm-hmm. Tissé Kilabati ñoom Birahim Nguer ñoom Fëgala. Mm-hmm. ñoom Gaal Ndiaye ñoom waa liggéey Samba Sow ñoo ñëpp Tissé que euh, loolu jamono jooju nga doon tànn mbër yooyu lan moo ma ko mayoon mooy Mm-hmm. malgré que j'étais. nga daan Yanda tamit Yanda sa xarit nekk États-Unis ak boobu nag malgré que j'étais mal encadré parce que ah. man musuma am nag encadrement. man musuma am mm-hmm. musuma parce que bawol nga nekkoon Mermoz man dégg naa ne dafa dégg naa ne ku bëri problème la. Mm-hmm. man musuma am kilifa ci làmb. <laughs> parce que man musuma nangu ku ma tënk. Ah. comme yi am nii. xam ah. nit parce que man bëre. dama jàpp ne si un sport trop trop trop individuel. gars yi nag bu ko def benn genre sport collectif. te dafa individuel. te dafa individuel parce que yow. Hmm. yow la ñuy liggéey. Hmm. yaay entraîné ji. Hmm. yaay def lépp. léegi am ay nit yoo xam ne il tourne autour de toi. bëgg di lekk ci yow amaanaa yoo xam ne sax say mbokk sax bu ñu yéexee duñ ci lekk. loo xam ne yow sa manager sax bu du ko ci lekk. sa entraîneur bu yéexee sax du ko ci am. c'est-à-dire man naka jëkk loolu dama ko mos a bañ. man bu ma la waxee est-ce que man li ma manager engagé bariwul man sama combat yi bari maa ko doon waxaale. yaa lijjanti say combat boobu man manager dama waxaale ak man juboo nañu. Mhm. nee na suuf sangam dina joxe avance. Mhm. nga dem ah boo mën a la mhm. ma ñëw bëre. naa entraîné nag parce que yow xamoon nga bu baax. naa indi doole. naa indi forme te bu ñëwee naa jël décision pour bëre. moo tax sama combat sax daawul yàgg. léegi nag bon bi ma demee ci làmb ba xam ne carrément fi mu toll nii nag moom caaxaan jeex la ba jeex doole ji wàññeeku na. et puis promoteur yi jubóo ma ak ñoom lu bari parce que. Mm-hmm. <laughs> la majeure partie. Mm-hmm. ñi ci bëri am na ak ñoom problème avant may dem. Mm-hmm. Gaston rek laa mosul amal problème parce que Gaston moom ku ne xam nañ ne vraiment. lu tax doon am ak ñoom problème lañ say kase moo baaxul. wala parce que dafa am benn façon bu ñuy tëggee làmb mosuma ko nangu mooy làmp bi dañ koy tëgg médiatiser ko ci wax te fekk yow ni la joxe xaalis demewul noonu. mën nga gis promoteur boo xam sax dana jox benn 500000 wër plateau yëpp mel ni ku la jox 10 millions. ci ni muy waxee. Hmm. mbër sàngam mu ngeeg sama avance fekk benn cent mille la jox sax parce que am na producteur day xam ne tabaski jot na. Hmm. yow amoo loo tabaski ku la jox trois cent mille nga jël ko. Hmm. mu ñëw jox la ko mu nekk benn genre accord verbal signature amul dara amul borom ci plateau yi waaw ah, Pape Sène tëgg naa ko Mamadou Boucar jox naa ko xaalis. say mbokk jàpp yaa ngi xaalis bari. yooyu yëpp daaw ma ko nangu. promoteur à chaque fois dama daan wax ak yow ne la nii ak nii te comme que moom jamono moomu amoon doole bu bari. soo sama cachet économique yi ak yi dañuy pro dañuy préféré ñu boycotté ma. Mhm. mais tey yàlla baax na ba ñi ma boycotté woon. ñu ngi may sollicité. Mhm. ci dimbalu ah, yàlla sant mais mais dem États-Unis nga fekk fa ñoom fëgal la ñoom Pape Mor Lo ñoom trompeur ñoom Yanda. mais on dirait que ñoom ñëpp ngi États-Unis na ngeen di vivre foofu. non ñu ngi États-Unis nag mais on vit séparé sequñu dara. sequ leen dara. bien parce nag entre guillemets bu gars yi dégg na mbër waaw am na ñoo xam ne déggante téléphone duñ ko def. parce que États-Unis nag bopp sa bopp la foofu beneen esprit moo fa am man ba ma moo tax sa ba ma fa demee ma sant yàlla. parce que dama ne man carrément ndekki man fii laa bokk. <laughs> <laughs> dëkk. mbër yaa ngi may dégg tele laay foofu bi ma ñëwee mun naa ne sax presque kenn wu yaa integre sa bopp. yee parce que ñooñu boo xoolee seen état d'esprit. mooy ñoo xam ne nii. dinañ la lijjanti mën nga ñëw tey nga bokk tey. Hmm. ci yow lay dépendre. Hmm. parce que États-Unis li ñu lay wax mooy. kon yow amoo woon barrière business and mind your business. liggéey sa liggéey ah. bu kër muy liggéey fu mu hmm. jëlee xaalis bi oto bi rafet na kenn du la lijjante fu këram gi nan la def ko non. barrière langue amoo ko woon. la langue barrière bi anglais bi. cest que euh, ku ne xam ne ne boo anglais euh, États-Unis bokkul ak british. Mhm. c'est l'anglais de la rue il faut nga oser. te man ku ne xam ne dama oser. Mhm. mun naa ne presque avant may def deux ans maa ngi di wax anglais. Mhm. léegi sax bi may doog a ñëw sax bi may a ñëw franchement nii. Mhm. muy sama kër muy ci biti dem naa mënut wax sax olof lu bari. Mhm. parce que bëggutuma ko. Mhm. mais yow da nga da nga teel a déranger lu <laughs> la. parce que ak <laughs> foo teddeewul. loolu nit yu eh, eh, eh, doon care parce que la TFM mën na defar. kon États-Unis moo la gënal Sénégal. fuuf. ah lu ngay wax rëy na de. pourquoi pas mais mais Sénégal moom moo la moo la defar ba nga àgg ba nga mën a tukki. Sénégal moo la defar. Sénégal. kan fii nga juddoo. waaw fii nga nàmpee. waaw fii nga màggee. fii nga bëree. fii nga bëree. fii laa ñàkkee. lamb lamb visa bi nga am pour dem États-Unis fii nga ko amee. États-Unis laa tëddee. États-Unis moo tax tey jii ku ma yeboon yebatoo ma. kon États-Unis mooy sa premier peuple. yee parce que tey maa ngi ñaan am passeport américain te passeport boo koy am am looy wax. mais pourquoi yow investir aux États-Unis nga ñëw ba Sénégal bi investir. non parce que côté investissement parce que investissement fi dal mm-hmm. am na ay américains yi am fi ay immeuble. am investir aux États-Unis ça est ce que ma investir est ce foofu. Mm-hmm. parce que dama toll ci xam nga rek defaruwaat. Mm-hmm. toll ci rattrapé. parce que j'ai perdu beaucoup. yaa ngi dégg boo xoolee tey làmb def naa ci vingt ans. li ma amul ci vingt ans ci làmb am naa ci quatre ans états lu ko ëpp sax. parce que tamit xam nga man vraiment bëgguma di lakk-lakkal ay wax naan yàlla hmm. nii di damay bëgg a wax affaire yi ni mu demee. léegi daal américain américain sant léegi yow américain la. Euh, half half. Hmm. xam naa ne bu ñu demee ah. laa gën a nekk di Sénégal. kon yow sa vie <laughs> après fële nga ko nga koy defee. non. foofu nga ñaan ñu suulee la. non man fii. Ah. parce que fii laa ñàkkee woon kon fu ma amee fii laa ko bëgg a wane. Hmm. parce que Iba xam nga rek. ñàkk dafa métti. ñàkk. am soxla mënoo ko faj. ñàkk ñàkk mooy lan. ñàkk mooy nga gis ne li ndox bi bëgg naa ko. mënoo ko am mu ngi jaar 1000 francs mais aw ma njëgam. day indi te ñeetaate day indi soxor. day indi hmm, am loo loo jàppal sénégalais ba. wala si sa làmb la Sénégal laa ñàkkee woon. Sénégal laa sonne woon. Hmm. Sénégal laa doon déggee yenn yi. Mhm. Sénégal lañ ma xeebe woon. Euh. xam nga. Mhm. kon nag léegi yàlla def na loolu dañ na. Mhm. kon est-ce que ban ban ñàkk-ñàkk nga di nga nga traversé. nga dund quoi nga dund ban ñàkk-ñàkk nga dund. non ma waaw mais bëgg naa xam la ban ñàkk-ñàkk nga dund. da doon toog amoo am problème dépense. am da ngay mën a ànd ak sa ngor rek. mais boo àndul ak sa ngor. mën nga def lu nekk. bilaay dëgg la. parce que Iba da ngay toll moment boo xam ne nii. dafa leer na leer tey jii sa papa war a dundal yaa ko war a dundal hmm. te gis nga fi ñoo xam ne tey jii ay ponkal yoo xam ne nii hmm. seen papa moo leen dundal ba léegi hmm. am moment boo xam ne nii yow leneen war nga am jabar mais yow doo ñemee wuti jabar malgré di am gel sax mais pour wut jabar parce que yow da nga jàpp ne kii kat bu ma ko jëlee mu chargé sama kaw kon man tey jii sama ñàkk sama torox lépp dina gën a métti dina gën a feeñ nga préféré toog sa roq. jàpp ñu naan la jabar nga naan ah bëgguma ko bu fekkee bëgg nga ko. Mhm. mais xam nga ne mënoo ko yor. Mhm. parce que da nekk ci kër gis grand frère bi troisième rakam sax denc jabar ci kër gi jën ñaari jabar. te moo mhm. parce que amul lu leen yoree. surga doon. yow da nga doon am problème jënd café xanaa wala joxe dépense. boo amoon naa ko euh, aw ma ko woon parce que yàlla dafa def nag yàlla boole ma ak jabar ju baax mais xam nga dans les normes jigéen góor moo war a jigéen jigéen war yu góor. du dëgg. Mm-hmm. wala jigéen bu lay yor tamit na la yor pour un laps de temps. Mm-hmm. mais warul continuer parce que bu continuer rek day indi découragement. Mm-hmm. muy ci moom mu ci ay mbokkam. mu ci mbokk. parce que jigéen bu dee bu dégg ñu naan ko yow sa jëkkër ji amul la benn njariñ ah sa jëkkër ji defalu la dara. dégg nga loolu. non cest à que bon loolu lu lay wax. lu ñu wax waaw moo tax ma man moo tax dégg nga loolu. mais doomu aadama war nga mën a xool nit ñi rek war la évaluer lii lan ñuy lan ñuy si man. même boo ko déggul. xool na parce que sénégalais dina wax ubbi gémmiñam mais Sénégal des fois dina wax te du ubbi gémmiñam mhm. ci ay gestes rek. ay manière mouvement yi duñ wax mais geste la ñuy waxee. Sénégal am na nu muy comporté ak da ngay xam ne yow kii daf maa xeeb Sénégal am na nu muy comporté yow kii teg na ma fu rëy c'est-à-dire que sénégalais mel noonu. kon dafa am loo jàppale sénégalais yi on dirait parce que yow yow la nga génnee sa bopp sax. di wax sénégalais yi dafa am loo jàppee sénégalais. xam nga soo mën a jàppee. xam nga hmm. tey jii boo xoolee man def naa def naa États-Unis quatre ans. ñëw naa fii maa ngi war waroon ñibbi barki dem le 28 ma yokkaat un mois. Hmm. Sénégal a neex. yaa ngi dégg. Hmm. nga xam ne kon parce presque bu nee Moodu Moodu boo ne fii nga dëkk kon dëkkatoo fi. 4 ans fële mois fii te su ma demaatee li may am fii mu ëpp fii vacances yi du passé 2 mois boo xoolee man sa gars yi dañu am ne lu xew parce que lépp lu ma ko planifié. Hmm. li may nekk États-Unis yëpp maa ngi xalaat ne man bés na jot ma dem Sénégal malgré que am kayit foofu jafe na. mais maa ngi xalaat ni bés mu yàlla dimbale ba am kayit ba dem Sénégal war naa a préparer ma neex te du ma laaj kenn paas kenn dara. Mhm. anglais de. macha dara si kenn. waaw ah. am na jamono xam ne saa yu ma jógee am problème maa ngi naan xam sama doom bu feebaree ma ne eh grand Aliou. xam nga kii fajal na ko. Mm. jël sa ordonnance doom wan ko kii pour mu jox la pour nga faj ko est que doom boobu bu jógee mën a fontoo kii est-ce que mën a fontoo doomu kii Ali peinture bu mu def si Sénégal ak li mu fi wax il a peint le Sénégal de en noir nag waaw moom ni mu peinturé Sénégal sax dafa garaaw ah. mais dañuy jàpp rek ni tey xelam foofu la toll euh, Sénégal c'est dëkk la boo xamante ni macha allah dëkk boo am jàmm ak salaam la ay jafe-jafe am na fi parce que comme on dit ñun ñëpp jaar nañ ci mais bu demaatee ba ci kanam tuuti mooy ki nga xam ne mooy ñibbi suwaat Sénégal par force. Mm-hmm. parce que xam nga da ngay nekk ci réew. jëli fa métit nag parce que kii boo ko déggee ni muy waxee da xam ni Sénégal méttite ko fi jëlee. Mm-hmm. bu jógee ci métit nag dem fenn yàlla di ko suturaal muy am teraangaam di dimbali boppam di dimbali njabootam di dimbali ay xaritam. Mm-hmm. nii rek lay lay réagir c'est tout à fait normal ah. mais boo ko mayaatee tax ba ci kanam ba mu mm. dem bëgg xel mi dal xel dina ko ginnaaw dina ko digérer xam ne nit mënul am fu gën Sénégal mm-hmm. la preuve mm-hmm. ñëw Sénégal pour deux mois trois mois yokkaat un <laughs> la neex Sénégal rek la ma ah. donc ça comprend ñooy ah. moo pareegul rek sa sa copain Pape Sène mu nettali fii yëpp xam nga waaw man jàngat bi ma ci am rek mooy nit ki li nga dund rek nga mën a wax mm-hmm. waaw mais nag lenn laa koy lenn laa koy wax. sama sama mooy su dundul woon lii du am lii tey. parce que nit il faut nga. dégg nee na boo dundul lii. doo am lii tey ah. que parce que nit ki parce que nit ki nit ki mooy chaque jour li may wax rek never back down. waaw amul dellu ginnaaw. ci sa mm. life. Mm. lépp loo mën a def rek. xamal ne yàlla suñu borom du dimbali yaa foos. lépp lu mënta am ci doomu aadama. xamal ne sa destin la ak lépp lu mënta doon ci doomu aadama xamal ne lépp loo yor sa dëkk nga koy delloo parce que sa dëkk tax ñu fëgg say nopp tuddee la Pape Sène imaam bi ba muy tudd loolu la tuddee Pape Sène fan la ko tuddee fii. làkkul anglais làkkul làkkul beneen la tuddee tuddee Ronald Reagan wala George Bush. jeex na tuddee loolu loolu la tuddee yow léegi nag man lenn rek laa koy wax gis nga su soobee yàlla. ñoo ngi koy loolu laa koy ñaanal ko quoi ci barke yaa rasul mhm. mu dem mu delluwaat États-Unis ñëwaat def ay immeuble ba pare mhm. di dimbali doomu sénégalais yi nit mooy ça veut dire ça veut dire lépp lu ma am dam koy delloo ci dëkk bi ma juddoo fi ma yaroo mooy ça Sénégal moo la may xam-xam bi parce que fii nga jànge jàngee woo États-Unis mhm. fii nga duggee école parce que tu te soo ko déggee mii wax intellectuel la. Hmm. ku jàng la ku xam àddina la. ba pare même ba muy bëree man maa ngi ko doon seetaan mooy pap moo doon nit boo xam ne leen la doon xaar mooy pépp dal na sa kaw. du xaar moom wulli benn lañ du xaar benn voilà wulli sax ci moom la jëlee loolu. Ah. du xaar day dem jël lu mu moom nga gañ ko ñàkk gañe gañee. Hmm. parce que noonu la daan gañee ay combat mais nag Pape leen laa lay wax rek mooy danga fi bàyyi ay ndaw. Hmm. danga fi bàyyi danga fi bàyyi da nga fi bàyyi njaboot. danga fi bàyyi ay frère ay sœur. da nga fi bàyyi ñu bari ñoo xam ne jamono jii bu njëkk ba bu njëkk ba yaakaaruñu woon ci yow bu njëkk ba yaakaaruñ ci yow tey gannaaw yàlla dañu yaakaar ci yow. donc yow li mu lay mu lay mën a wax rek yàlla na yàlla defal jàmm. amiin amiin nga dem xéewal bi gën a saawoon baawam loolu lañ lay ñaanal. soo mm-hmm. ñëwee seddoo dox sénégalais yi. voilà léegi lu mu bëggoon xam. la yokk làmb moom jeex na. da ñëwaat takk sa ngemb wala pare nga si làmb. information bu lañ moom la moom doy na làmb moom xanaa xanaa moom may seetaan ko seetaan ko te seetaan bi sax. li ci ëpp mooy Lutte TV. nga xam ne que vraiment seen innovation yi moom ci gën a neex. waxal micro bi sa wet mais boo boo bëggee dëgg dëgg rek mooy làmb doyal naa ci. doyal nga si du bëre du promoteur du dara. xanaa ñëw seetaan en tant que ancien lutteur wala en tant que manager. Mm-hmm. parce que xam la moo tax. Iba euh, il faut savoir arrêter man bu dul boo bëggoon sax sama yaram mënatu ko. Mm-hmm. parce que xam tamit yoo xam nga ne ku ne xam ne ne Amérique boo ko xamul dégg nga ko. Mm-hmm. te ku ne xam ne Amérique dëkku yaakaar la. boo xoolee tey jii boo demee tey 116. Boucar. Mhm. tey boo newoon cëpp Amérique tey. Mhm. da nga naan benn jeune du Sénégal. kon loolu mhm. yaakaar la boo xam ne yàlla moo ko def ci Amérique. te du Sénégal rek moo fay dem c'est tout le monde parce que Amérique mooy dëkk boo xam ne nii moo la mën a yow mën nga pauvre ren Amérique def la Richard déwén. Amérique rek moo ko mën. Amérique rek rek. kese. fii nag mënoo fi pauvre nekk fi Richard. pauvre la nekk rek dem nga rek Richard. mënul nekk mënul nekk. déedéet. parce boobaa. di nga gis sax ku la leb te du Hmm. <laughs> ku la. leb sa du loo ko fay. du soit mu yaakaar yoon wala mu yaakaar sëriñ ba yow leer nga ne du la fay. te yow dangay dem ba benn instant mu hmm. borom fekk la ngay a ginaar wala ngay reere ginaar te naa ko booy xaar am na may xaar waaye. maanaam am xam ne Sénégal bon hmm. mënuñu ko yàq. parce que tey jii bu ma fi toogee ba heure bi vacances deux mois doy na. sama projet yi ma nekk ak samay affaire yi may. da nga am frustration si làmb. di la naqari si làmb mooy lan yan nga frustré wu. mooy frustration bu mooy dama gis des promoteurs yoo xam ne nii. Mhm. Euh, dañ ma doon guerre ci loo xam ne nekkul man ak ñoom directement. promoteur yi lay guerre. waaw ay écho. Hmm. xam nga loolu moo yàq Sénégal Sénégal tey jii. mais loo def ba ñuy géer la. Sénégal mën na bañ am problème ak Boucar. Mhm. mais dégg Amady Aliou Ndiaye naan booy bu réew la. Vito ne Boucar booy bu réew la yow nga ne booy bu réew la mu toog néegam ne booy bi dégg naa dafa réew quoi xaaral.